xam nga dafa am loo xam ni war nañ leen koo yégal am loo xam ni nguur ko moom ñun loo xam ni maire Mbour moomu ko duñ ci sori ñoom ñëpp xam nañ foofu université virtuelle état moom moom terrain bi bi mu ñëwee defar na fa université bi mu des six terrain ñu joxe ko te nikaat dañ ko joxe maire Mbour joxewu ko ñun suñu yoon newul ci loolu. nikaat mooy li nga xam ni moom la kalas euh, euh, di joxe ci tur ci kayitu kër kayitu kër la daal façon kayitu kër la boo xam ni euh, karas lay jóge parce que terrain état ñun du ñu ko laal suñu yoon newu ci bu ñu ko defaree ba pare nag ñoom dañ koy indi maire yi pour maire approuvé mais lii ñuy wax ñoo xamuñu ci dara dara dara ay politiciens ñoo taxaw seen ginnaaw di leen manipuler di wax ni jël nañ terrain ñaar fukki terrain ak juróom-ñaar te loolu bu ñu laajoon ñu wax leen benn projet moo fa musa am privé bu ñu nee dañu fay def benn hôpital privé man leen fii moomuñu ko ñun duñ ko ci def fekk ñoom ñu defar seen plan ba desee ci ay 27 parcelles bi ñu ñëwee may leen lii ngeen ñu def baaxul parce que ñun moomuñu ko ñoom ñu delloo ko nit ñi nag dem jël plan boobu di wër di wax dañuy joxe fi 27 parcelles xam nga du ma leen tontu parce que kii wër di wax ni maire moo jaay sunu terrain maire moo mais nañ ma woon kenn ku ma jaay terrain mais loolu amul nit ñi nekk seen ginnaaw di jéem a yàq der ñun suñu der kenn mënu ko yàq boo ñëwee mbuur di nga xam ni nit ñaa ngi liggéey

dañ ko fa def ñu toog ñu waxtaan ci waaye nit ñi di leen di influence di leen wax dañuy yàqal seen bopp parce que euh, loolu ñuy wax ñëpp a ko soxla ci dëkk bi ñëpp a ngi ñëw ci mairie bi président conseil de de euh, quartier yi ñu ngi ñëw délégué de quartier yi ñu ngi ñëw ñoom gisuñu leen ay nit a fay ñëw bu leen nangu lii bu leen nangu lii teg leen ci seen bakket te ñooñu koy wax du ñu taxaw mukk nag teg ci seen bakket dafare la ñuy taxaw di jiital nit ñi di leen dugal ci lu ñu xamul fii dëkk bi lu fi am boo ñëwee ci maire mu expliqué la nga dem ci préfet mu expliqué la nit ñi ñoo ñuy wax noonu dañu yor seen i këyit ku ku fa laal yëfu jàmm nag yaa yaa yoon duma ma ci parce que dañoo xamul lañ leen di wax loo waaye ban li ma war a defar golf danaa ko fa defar courant ba dana ñëw bu soobee yàlla ndox mi dana ñëw dispensaire boobu ñuy wax dana ñëw amuñ ci benn amuñu ak ñoom benn xeemayal li ci des nag moom ay wax la rek.